au mois de février 2024 merci pour la transition parce que Macky Sall il a fait une sortie médiatique ak benn groupe de presse français il a parlé de la candidature nee na juridiquement le débat ne se pose pas parce que mandaawam bi hors de portée la des réformes yoo xam ne amal nañ ko en 2016 bokkul ci li nga xam ne mooy les deux mandats yu ko constitution permettre ma ama euh, les Sénégalais dañoo tàmm di naan euh, bu ñu évoquer un sujet chaque fois boo laalee par exemple français fa ñu ne la tu n'es pas un économiste bu ci wax mhm. bu ñu laalee chaque sujet di ñu bëgg nee ñi ñoo ci am droit wax et c'est ça le problème mhm. euh, mais le droit avant avant muy nekk une affaire de juriste et d'abord c'est du français mhm. tubaab la ñu làkk nul ne peut faire de mandat constitution xamul mandat de cinq ans sept ans huit ans constitution dafa ne nul ne peut faire de mandat maintenant euh, man aw ma ci problème le ici le président Macky Sall et son gouvernement ils sont minoritaires aujourd'hui dans ce pays. ce qui veut dire moom nan dem élection sax man d'accord naa sax mu dem. élection ah oui. avec ou sans Sonko il il sera battu. yow loolu nga gëm. man loolu laa gëm. te man dama xam ne loolu moo am moo tax man ne jarul sax moom xam na ko sax. xam na ko et les Sénégalais mais est yi parce que opposition bi loolu ñu ragal en fait. Euh, benn vol en amont. et c'est ça ji. loolu la ragal. Euh, c'est ça c'est ça le dommage bu ñu demee ba dans un pays où les gens n'ont plus confiance. Mm -hmm. ni à l'armée ni à la police ni à la gendarmerie ni aux institutions de ce pays ça c'est très grave te je crois que ñi jiitu woon Macky Sall am na ay actes ñi doon posé ba Sénégal bi tey jii boo xoolee le Sénégal a beaucoup reculé am na loo xamante ni kenn mënu ko imaginer dinañ ko dund tey jii ba ñu dem ba aujourd'hui les institutions sont sens dessus dessous. xoolal li nekk di xew ça n'a pas de sens. mënuñu responsabilité yéen non attendez non non le seul garant des institutions de ce pays. c'est le président de discours en fait. non non le discours ne peut rien changer. et d'ailleurs il faut pas pousser les gens à am na loo xam ne da ngay am na lu acte yoo xam soo mais tu vas soulever. dire euh, des population après nga ñëwaat ne dañoo def lii man munoo maa fekk fi ma toog nga mbéj ma ma réagir nga ne yow ta réaction a été violente su ma jëlee cours dóor la ko si bopp bul bul nee man li li ma def dafa dafa violent yaa ma tooñ et c'est ce qui se passe am na loo xam ne est-ce que tey jii euh, dans dans dans un état sérieux mm-hmm. on devrait être là à discuter entre loo xamante yow da nga ko doo xeex parce que la situation d'aujourd'hui moom la Macky saa doon xeex ak Ablaye Wade dafa ne woon Ablaye Wade yow amoo droit présenté wu mm-hmm. xeex na ko fii est-ce que la même personne même situation yow nga diw taxaw tey mais sauf que la constitution prête à équivoque maanaam ni ñu mais actuellement c'est deux camps qui se qui se Ablaye Wade 2020 2001 une constitution qui bi ne woon sept ans mm-hmm. mu ñëw changé constitution en ne mandat premier mandat bi bokkul c'est la même exactement la même chose amul changement li fi xewoon moom moo xew tey ji alors que démb yow doo yaa taxaw amul lii laa doon wax depuis sànq mhm. yow mënoo ñëw li nga xeex démb li nga xeex démb moom moo xewaat tey te yow yaa ko xeex démb tey ji nga taxaw di ko défendre mais nee na les circonstances changer loolu ko moment bi nga koy wax hmm. na loolu du wax waxeet c'est comme ça qu'il l'a dit non non man sa euh, man gisee ma ko wax waxeet nañ dem élection <laughs> yow daal loolu nga gëm. nañ dem élection et ils verront que ce que ce qu'il y a dans le cœur des Sénégalais. mais élection yooyu noonu ñu war a dem sa leader bon pas sa leader sa camarade Ousmane Sonko dafa jàpp ne pexe gars yi mooy mu bañ ci bokk. loolu moo tax mais c'est ça parce que xam na ñun c'est le seul mais quel est le seul leader qui dit wàcce leen ci mbedd mi ngeen wàcc. kan moo capable de le faire. mais est-ce que vous avez les moyens d'imposer la candidature d'Ousmane Sonko. non non on va li ñu yoon may. loolu ñuy def mais yoon bi ngeen ne wóoluwu leen ko. ñi ko ñi ko waxoon après gis nañu. non touche bi lañ dem. Ah, Khalifa Sall Karim Wade euh, je crois que waxoon naa la ko fi sànq. Mhm. Ablaye Wade dafa bëggoon jalgati fi constitution en 2000 je crois que la pression populaire tax na mu reculer. et vous pensez que Macky et je pense que nous on fera la même chose. on ne laissera pas quelqu'un tripatouiller ou di jalgati loo xamante ni yoon lu Sénégal loolu la bind. les arrestations sont là pour. Oh oui, faire pour non, euh, vous savez, euh, les... c'est ce qu'on pense. Mais tey jii boo taxawoon arrêté kii nga gisaat ñeneen est-ce que ça a poussé les populations à, à, à abandonner les rues au contraire malgré le recrutement le renforcement li mu defoon yëpp. Mhm. ñëpp gis nañu on est obligé même de faire encore appel à à l'armée fii nii il ne peut pas arrêter la colère des Sénégalais les gens sont fatigués avec ce régime qui aujourd'hui tue les Sénégalais ce régime-là qui malmène la population du Sénégal c'est pas possible les gens ne peuvent pas accepter cela et je sais que aujourd'hui les gens se battront jusqu'à y laisser nos nos vies mais on ne laissera pas euh, ce régime